Euh, Mass euh, ñaata ngay laaj dédommagement waa Canal. ma damay laaj un milliard. xam nga milliard xam nga luy un milliard de. Mass ñaata ngay laaj de waa Canal. ma damay laaj un milliard. xam milliard. milliard ok est-ce xam milliard. <laughs> gars yi dafa mel ni xamuñ luy un milliard de. ñu dem. Euh, Mass <laughs> ñaata ngay laaj dédommagement waa Canal. ma damay laaj un milliard. xam nga milliard. xam nga xam milliard. xam nga un milliard. xam nga xam milliard. xam nga un milliard. xam nga xam milliard. xam nga un milliard est-ce que milliard. un milliard. un milliard un milliard est-ce que xam nga un milliard. est-ce que xam nga un milliard. xam nga xam nga un milliard. xam nga milliard. un milliard est-ce que xam nga un milliard. milliard un milliard est-ce que xam nga un milliard.